بعض من تلك القصائد كان يبدأ بالغزل فيها ثم يتخلص إلا أن معظمها جاء الشيخ فيه فيها مباشرا يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر سيره وأخلاقه وعلى حسب ما وصلت إليه أن هذه هذا الديوان قد يكون كتب بين عام 1353 إلى 1354 هجرية أي عام 1934 إلى عام 1445 هذا لسببين السبب الأول أن هناك قصيدة من قصائد الديوان رأيت بخط يدي الشيخ السيد محمد مرام سيسي أخو, أخو الشيخ سيد علي سيسي الأكبر كتبها بنسخها بخط يده وكتب على في مقدمة آه، القصيدة قال سلطان المادحين وعالم المهتدين معراج العارفين وقدوة المحقين المحققين الشيخ إبراهيم بن حاج عبد الله التجاني يمدح خير البرية خير البشر وفخر ربيعة ومضر أوائل الربيع النووي عام 1353 مما يدل على أن آه، معظم جل قصائد هذا الديوان تواكب ذلك التاريخ بدايته أما ذكرنا بأن قد تكون آه، بعض القصائد خرجت في عام 1945 وذلك لأن نجد في في الديوان قصيدة جعلتك يا خير الأنام سفيرا وهي من قصائد الشيخ التي كتبها عام 1945 1945 ميلادية وذلك لأن أن الأستاذ إبراهيم محمود جوب ذكر أن هذه القصيدة هي كانت من الأسباب التي جعلته يوقن بأن آه، محمد لمينجي الذي كان آه، مرشحا في انتخابات البرلمان الفرنسي أنه سيفوز أن هذه القصيدة هي هي من الأسباب التي دعته إلى ذلك وهو ترشحه هذا كان في عام 1954 و 45 ميلادية فنستنتج من ذلك أن الشيخ رضي الله عنه كتب قصائد الديوان في ثلاثينيات وأربعينيات عمره واسم الديوان إكسير السعادات في مدح سيد السادات والإكسير هو شراب وهمي نعم شراب وهمي يقال أنه يطيل الحياة إلا أننا لا نشك في أن هذا الديوان إكسير لروح الإنسان والروح هي التي تحيا طيلة عمر فلهذا نظن أن اختيار العنوان هنا وفق فهذا الديوان حقا إكسير سعادة لكل من يقرأه ولكل من يعمل به فليس علي اللوم في ذكر وصفه وإن كنت لا أغني فتيلا أقرض عليه صلاة الله ثم سلامه بها أرتقي في الحب والمدح أحفظ عليه صلاة الله ثم سلامه لأبقى خديما بالثناء أتلفظ خمنا وقت بدفني خوتنك te baxtu bu mel nii sànq maa ngi koy wax ñu waxtaan man ak Cheikh Ibrahim Cissé ñuy waxtaan ñu ne thème bi moom yaakaar naa ne thème la boo xam ne nit ki téere la ko war a def ndax man damaa xamul sax lu tax waxu leen taxliil rek ba ngeen di joxe thème bii nii da ngeen di spécifier ay mbir yu bëri yoo xam ne defe naa ko ci doon dem yaakaar naa journée bi rek doy na ko wax ma la nag mu bokk ak yeneen diiwaanu baay yëpp waaye gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diwaan bi nga xam ne mooy iksiru saadaat mooy elixir mbégte ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi wax ci arab sànq ne bu fekkee dañoo xool gëstu ci diwaanu bi diwaan bi kañ la ko Cheikh Ibrahima Niass bind lii li ñuy gën a gën mooy bàyyi ci 30 ans yi 40 ans la ko bind ndax am na xasida boo xam ne dañ ko for ca euh, magi suñu sëriñ Seydi Ali Cissé radiallahu anhuma Cheikh Mouhamed Seydi Mouhamed Marama moo ko bind ak xalimam moo ko nasxoo xalimam bamuy bind ci muqaddima bi dafa wax ne qasida bi bàyyi ko bind ci njëlbeen ak weeru al awal 1353 te loolu mooy 1334 miladiya kon mooy na xëy na bi jëm 40 ans yi la ndax am na bokk ci xasiida yi diiwaan bi tamit boo xam ne dafa méngoo woon ak période bi nga xam ne mi ngi nekkoon candidat dugg ci parlement France bi oustaz ne xayral anami safira xasida boobu moo waral moom mu gëmoon ne Lamine Gueye dana réussir ba te Lamine Gueye candidature boobu 1945 diwaan bi ci diggante ñaari période boobu ba way ci diwaan bi fanweeri xasida ak ñaar fanweeri xasida ak ñaar boo xam ne def na ci lu ne tagg na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama tugg mel tudd mel ak yonent bi wa sallama melal ko junju ay melo melo yoo xam ne waruñ koo biral tudd ay may yu ko yàlla may moom tudd ay ngëneel yoo xam ne yàlla may na ko tagg yonent bi sallallahu wa sallama ñaanal boppam ñaanal soppe mi ñaanal taalibe mi ñaanal képp ku jàpp ci moom te loolu dëgg-dëgg ku ko liir ku liir diiwaan bi ku jàng diiwaan bi dana xam ne dëgg-dëgg Baay def na ci loolu yëpp muy diiwaan boo xam ne baxaru tawil la ko bàyyi wee ku jàng diiwaan bi am na ay ay bayit yu bari yoo xam ne nit ñi dinañ koy istishaad ci xam yàlla ci ubbi yàlla ubbi yépp ci diwaan boobu la nekk bàyyi radiyallahu anhu tudd na ci lu bëri comme li ma wax sànq ne tudd na mbëggeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne eh, jaam bi mbëggeel bu nekkee ci moom ñeel yow ñeel la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu teew lu mu néew néew néew néew sax dafay dafay nekk feex peex nekk ñeel ko tagg la yow yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne garab la buy faj bépp jàngoro wax ci beneen xasida ne man sàkkuma kenn ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa benn bëgg-bëgg lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa eh, may ak eh, jaam bu mu munti doon bu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ndax moom ci moom la yàlla jële lépp ci zahir ak baatin kon nag géej gudul géeju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man awma ci benn càkkuteef dem ba ci biir wax ne man yàlla dafa def atte ci man atteeg mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qadaa liya qaadi lxubbi wa huwa mubarrizun bi anni almujalla fi mahabbati ahmadi yàlla dafa bind ci asalam ne man atte gi ma atte ci Cheikh Ibrahima Niass mooy man dama bëgg yonent bi sallallahu alayhi ba nga xam ne man maay jiitu ñëpp ci mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam moo tax mu ne may tasarruf ci kaw ni bi yëpp ci mbindeef yëpp di doxa doxee doxu koo xam ne dafa mel nii moom moom lépp te loolu ci may gi yàlla yi ko yàlla may la wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith wax ne sax moom dem na ba bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg boo xam ne mbëggeel boo xam ne dafa jàpp ne moom mooy mayam mooy peexam mooy aaruwaayam ndax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy li muy xoolee mooy li muy gisee mooy tagguwaayam moo tax mu ne taxitu widaadal Mustafa wa madihahu jawaadi wa sayfi walqana wa xafira def naa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa mu nekk gawar gi may war mu nekk jaasa gi may boccee mu nekk may gi may maye mu nekk delluwaay gi may dellu man daal lépp lu ma am rek mbëggeel yonent bi laa ko jàpp te xam naa ma tëjee foofu ndax waxtu bi Baay melal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melal yu bari ci ci diiwaan bi ndax moom buy tagg yonent bi ci loolu lay commencé waaye am na benn xasida barki démb rek maa ngi ci doon waxtaan ak Seydi Baye El Hadji bi man damaa jàpp ne ku mënoon porté dëgg bu jëloon xasida bi déglu ko rek war naa mën a porté bi sallallahu alayhi wa sallam naam bi moo gën a kawe loolu mooy abarqu nahwal marabii yelmau te ku liir achamail muhammadiya ak bu mu mënti doon boo liiree xasida bi danga gis ne bàyyi daf cee dëxëñ bépp melokaan boo xam ne mel na ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk melo melokaan bu yéeme wax yonent bi nu meloon jëm lu meloon dënnam lu meloon euh, taxawaayam lu meloon nu daan toogee nu meloon buy ree nu meloon bu sëggee nu mele buy dox nu mel bu daan liggéeyal njabootam gi lu mel loolu yëpp باي تدو نكوشي أبرق بلا نحو المرابع يلمع فهمني مريان إذا المح البرق يلمع البرق يلمع ak yeneen melokaan yu bari yoo xam ne def na ko xam naa temps bi moo ñu tënk waaye ñi ngi sant Seyda ci ñaari mbir ci initiative bi nga xam ne dëgg dafay ndalaat dafay tax nit ñi gën koo mën a ràññee léegi ñi am ay mbir yu bari te buñ ko tuddee euh, ku mel ni euh, dëgg xel day dal ndax koo xam ne dundam yëpp moom li mu waxoon mooy ne bàyyi da ko wax ne ko baraam tasaareel li ma bind kon nag buñ demee ba di di tasaare waxi bàyyi hommagé ko ko dañuy sant ki ko def diko ko ñu yàlla may ñu mbëggeelu Cheikh Ibrahima Niass yàlla may ñu ñu deg waxi Cheikh Ibrahima Niass ba diko top wa ma zalika ala allah bi azizin wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin assalamu asalaamaaleykum